halaan bikum ginnaaw xaar bu yàgg tey la bésu dëgg bi tey la njiiti réew mi Macky sàll di wax kan la tànn ngir mu nekk candidat Benno Bokk Yaakaar ba tax yéene kaay yi tey presque ñoom ñëpp fa ñoo xëy di ñu yeggee xibaar bi yaaw seetal la dépêche yéene kaay fa wax na tey la bésu dëgg bi laas yéene kaay na ko bés bu nar a doy waar ndax tànn gi fa xam ay risque turbine yéene kaay na ko fa xaar lu yàgg waaye xaar bi tey mu jeex le quotidien yéene kaay réew mi fay baa tarawaat gi si di quotidien ne tànn gi nar a tànn tey ci samedi bi tànneef gi fa nar a am ay risque les ko yéene kaay ne majorité bi ñoom ñëpp fi mu nii seen chef la déglu tey laaj bi nag mooy xana kan la njiitara Macky Sall fas yéene tànn réew mi yéene kaay ne ah man de faa yaakaar ne Amadou man it moom laa foog wala kaay ne Abdoulaye Daouda Diallo tamit Macky mën na koo tànn de Dakar Presse na ko Aly Ngouille Ndiaye nag lam dara de enquête yéen kaay yi mel ni ku naan leen yéen daal fa di gisaane rek léegi waxtu dëgg bi nag léegi mu jot yàggatu dara ndax njiit réew Macky Sall fale na xoo ñoom ñëpp waa benn bokk yaakaar tey bu 16 jotee ca pale ba ngir yeggee leen kan la tànn coalition boobu nga xam ne nag muy benn bokk yaakaar fukki at a ngi ni Macky ko téye fay ragal fii lay doxee nag tasaaroo vox populi na ko xay loolu wax ju yàqu la di pour benn bokk yaakaar ndam te waa APR yi fa rafetlu doxalinu njiitëram Macky Sall ba ci ni tànnee seen candidat direct news nag man daal faa leen di xamal leen ak ku njiitëram Macky Sall mën a tànn pour candidat na ko wóor ne mënta ñàkk am ndimbalu Moustapha Ba jëwriñ ju ñu dénk wàllu koppar kooku ku jàppalewut sa affaire du baax wala fajir yéen e kaay na ko mën nag faa foog ne njiitëram Macky Sall ku mën a tànn candidat Benno Bokk Yaakaar affaire am mu baax ci wote yow euh, fa ngay xool ki muy tànn du am waxtu wu bari pour mën a waajal élection yi maanaam fañ koo yéex a tànn ba pare fa nar a xam ñu nekk biir benn bokk yaakaar ba ca APR ñoo xam ne duñ ànd ak kooku l'observateur ne xëy faa leen di wax dëgg njiitiram Macky Sall ku mën a tànn ku ne dana bëri ñoo xam ne ay responsable bennoo lañ ak APR duñ ca ànd te fa ñu ñàkkante ak moom te fi mu nii li xew mooy njiitiram Macky Sall léegi su waxee gars yi fañ koo xam nañ sañ na ko duñ def li nga wax ndax fa ñoo xam ne juróomi weer moo ko fi dese kon jaratul ñu koy ragal kilifteef fi mu toll nii njiitiram mi presque amatut ko benno loolu nag narta baax ci ñoom le quotidien yéene kaay na ko faa lañ ci yokkal lenn bu Macky tànnee tey ba pare xam na ñu bëri ci gouvernement bi ñoo xam ne fa ñuy génn dootuñ nekkati ministre fa ñuy bàyyi laa la wax wan ginnaaw njiit réew mi leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ñi ja mooy ne waa F24 yi fa ñoo xoo sénégalais yépp ne suba ci dimanche ji fa ñoo bëgg ñu yëngal dëkk bi def ay bruit daal lu waaye mën a tëgg na ko tëgg lu waaye mën a yooxu yu soufflé tëggam bool palaat ak lu munti doon diggante vingt et ba vingt deux heures ndax li leen naqari mooy fa ñoo wax ne ñoom saa buñ bindee sàkku ne fa ñoo bëgg a amal toogaanu ñax ñaxtu fañ leen koy xaayee léegi nag fa ñoo bëgg gouvernement bi dégg seen ñaxtu fa ñoo bëgg ñu ñu tëj kaso tax ñu bàyyi leen ñu génn wote yi di ñëw kenn nañ bàyyi ñëpp ko bëgg bokk-bokk sénégalais yi ñoo am sañ-sañ tànn ki leen doy ngir mu jiite seen réew mi ba a kaay na leen ah yéen mel ne fa ngeen di toppandoor Ousmane Sonko de ndax li ngeen wax ni moom kacax-kacax ci ay tëgg loolu kay mooy conseil de Castro rek <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca naññi ja mooy ne Serigne Assane Mbacke fa ñaawlu doxale ni njiitëra Macky la fa ko attaqué ci regard yéen a kaay ba tey yéen a kaay bi nañu Déthié Fall fi mu toll ni fay amal tournée bu mu duppee kaay bokk wàcc na ci terrain bi lépp ngir waajal 2024 2024 googu sax Racine Sy fa mel ni daal moo nar a nekk candidat patronat bi ngir bokk ci wote yi lii yéene kaay moo xëy di ko laajte ki laajtewut waaye fa xëy moom di ñu jox xibaar bu bette lool mooy source ay yéene kaay ah, yaaw seetal njiitëram Macky Sall fa jël dogal delloo si soldaaru Sénégal yi nga xam ne jàmbaar yi fa ñoo nekkoon ca réewu Mali MINUSMA ba alxamis lañ commencé di ñibbisi yéene kaay bi na dogal bi ni mel nag fa bett ñëpp ndax weeru novembre ci leen waroon a tax njiit réew mi def li ni mel yéene bi ne bokk na ci réeroo crise ba am Niger fay bañ soldaar sa nga xam ne ñoo jiite réew bu Mali def santas réewum Sénégal réewum marok nag moom lu métti te doy waar moo leen dal yaw fa ngay xool li ñuy wax tremblement de terre maanaam suuf su yëngu xotteeku xar ba xay doomu aadama yu bëri faatu te ñàkk seen bakkan laas yéene kaay ak vox populi ñoo ñu ko xamal diwaan ba ñuy wax Marrakech fa la yëf ya gën a méttee nag ña ngay wax lu ëpp juróom benn téeméeri doomu aadama yu ñàkk seen bakkan ak ñu bëri ñu ca am ay gaañu gaañu luy leer laneen lu leer ba yegg ca nàññi ja mooy ne réewum Sénégal moom jafe-jafe bi askan wi am jamono ji la ca gën a bëri mooy inondation mbënd mi nga xam ne taw bi xandi na ko Dakar presse yi ne kaay na Ndakaaru Njaay moom banlieue ba ñoom fa ñuy tëmb ndox maa nangu kër yaag mbedd yaag néeg yaag ñu ne déetewaay diiwaanu Kaolack ndangaan Bambey Koungheul Touba ñoom it xaw nañ yoonu nekk ci mbënd mu métti ndax ndox ma fa faa bari l'observateur na ko faala ci yokkal fa ñuy wax Touba nekk ca département bu Foundiougne foofu taw bu bëri bi ñaar ci ay hectare ba tax fi mu toll ni fa ñoo jaaxle libération fa ñoo xamal ne oustaz Tayib Socé am na ndam tribunal jox na ko dëgg ci coow liñ ko fi doon toppee jëm ci wàllu tappale wàllu or ak tàggat yaram Sénégal fay bal ak Rwanda tey ci samedi ji juróom benn lu bëccëg tànneefu Coupe d'Afrique ba ñu war a amal ci Côte d'Ivoire ba tax les secours yéen kaay na gaynde yi fa ngeen a war a am ndam tey ngir jeexal yëf yi ci ni mu gën rafetee record ak stade ñoom fa ñoo xamal jàngat ci jongante bi keneen ko amal jàngat ci kumba jigéen tuuru kawlax histoire mboose kumba jigéen njëriñ lam xamal askanu kawlax mbiru cosaan kaay moom fa ñoo xamal ne fa xam ñaari seex yoo xam ne bi ñu juddoo fa ñoo taqalantoo aadama ak awa docteur yi ci seen xarañ ñu fexe ba tàqali leen terewut ñoom ñaar dund nañ ak léegi ñaar fukki at ña ngay nettali seen jaar-jaar yaaw seetal aadama moom liggéeyam mooy fay séddale ñam ci ab restaurant ñu di ko fay vingt mille seen yaay na kumba nee na sama doom yi nguur gi fañ maa digoon na ma ñoo koy taxaw toppatoo leen waaye benn weer rek lañ ma dimbale ci meew ak couche li des yëpp maa daanu libération moom fa ñoo xamal xab xale góor boo xam ñaar fukki ak ñett Cheikh Ngom fa takk boppam xaru faatu ñàkk bakkanam allah yëf yaa nga amee ca Bambilor l'observateur moom fa ñoo xamal ñeenti militaire yoo xam ne fañ leen a teg loxo ndax fa ñoo wax na fañoo ñoo violé ab xale bu jigéen bu am fukkaat ak juróom aay yëf yaa nga amee ca Wakam ñeenti militaire yi nag ci armée de l'air ñu ne fa la ñu bokk mu ngoog nag abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér wóor